da koo tooñ mais daf ko engrossé bi mu ko euh, tooñee ba noppi comme elle était de 17 ans nekkoon mineur daf ko obligé ngir mu daal di avorté bi mu avorté ba pare daal di dem moom commissaire Keita moo def li yëpp Jurbel la xewee bi mu defee loolu ba pare daal di nag euh, xool à l'amiable naka lay euh, problème bi ak famille xale bu jigéen boobu donc après tout ça aussi am na ay détournement yoo xamante ni aussi ñu ko ko doon jiiñ foofu ca Jurbel ginnaaw sëriñ ginnaaw benn kilifa gu nga xamante ni daanaka yoroon na kooku foofu ak koppar gu am solo mais commissaire Keita dafa am ay luubal yoo xamante ni doxoon na ci digganteem ak euh, kilifa euh, murit boobee loolu mi ngi xewee ci Jurbel jiyee jooju yi tamit taxati ñu jëlee ko Jurbel yóbbu ko Louga bu ñu ko yóbboo euh, Louga yi tamit daanaka première semaine bi rek la wane boppam ndax bi mu jëlee fonction daanaka li mu njëkkoon a def bokk na ci jël baar yi nga xamante ni moo amoon foofu ci Louga daal di koy tëj ñu ko tëjee ñu ne xëy na Euh, dafa bëgg a defaraat jékk-jékkalaat mais dafa tëj baar yi ba pare quelques semaine après mu daal di dem ubbi baaru boppam maman mhm. bi ma ubbee baaw baaru boppam moom commissaire Keita ubbi tëj ay baar mais ubbi baar boo xamante ni ci turam da ko def moom bi nga xam ne moo di commissaire Keita loolu mi ngi xew à mhm. ginnaaw si aussi euh, ñu nekk euh, pour entretenir ba baar yooyu noonu da doon jëngu ci wàllum kiiwu dagg bois nu ñu koy tuddee tuddeeti sax ci jaay ak jëndum dagg bu waa mais loolu mu ko doon defee à Dakar mais xaalis bi doon bi mu doon jëlee dakaar la doon yóbbu pour entretenir baat yi nga xamante ni eh moo nekkoon foofu ci Louga entre autres nekk ay doxalin yoo xamante ni daanaka moom nemmeeku nañ ko ci loolu yi tamit tax ñu jëlee ko fa andiwaat ko fii ci Parcelles Assainies parcelle moom ba muy def passation de service bi daanaka ci la daal di xëm ñu évacuer ko mais moom commissaire Keita fii ci Parcelles Assainies donc waaye euh, parcours am dafa doy waar dafa doy waar li tax mu xam xam xëy na euh, dafay lié à un réseau boo xamante ni tey dañ ko démantelé woon mais moom dañ ko ci doon tudd moom mi nga xamante ni moo di commissaire Keïna ak Keïta xëy na ñenn ñi xamoon nañ ko loolu taxoon mu daal di am benn malaise ginnaaw si lañ ko jël jër nag xëy na casé ko ñu yóbbu ko orcutis orcutis tamit bi ñu ko fa yóbboo daanaka xëy na moo nekk euh, dernier poste bi nga xamante ni euh, nemmeeku woon nañ ko ci mu am ko mais à rappeler que ki lay di le président Macky Sall nga xamante ne moo taxoon mu nekkoon ci réseaux sociaux yi di défendre nit ñi di défendre Macky Sall di xas Ousmane Sonko Macky Sall moo ko ràjjee donc euh, nekk na mbir moo xamante ni c'est incompré incompréhensible parce que ki la ràjjee joxañ la baaraamu tuuba ba tax tey mu daal di la yëkkati ci poste boobee à jamais moom nga mujjee di ko défendre euh, doon nañ wax ay jamono sax dam benn date bu précise boo xamante ne ñun jotoon nañ l'information selon laquelle amoon na ñaari émissaires yu jógee palais de la république fekk ko moom commissaire Keita am xaalis bu am solo boo xamante ne joxoon nañ ko ba tax muy am prise de position yooyu doon jël ay accusation yu doy waa di ko teg ci ndoddu sénégalais yi waaye di ko teg ci ndoddu Ousmane Sonko ak opposition bi nga xamante ne moo nekkoon fu moo nekkoon sur place xëy na peut-être pour def benn synthèse synthèse pour mm-hmm. wax sénégalais yi en réalité kan mooy commissaire Keita parce que mm-hmm. li ñu yor ci information ci moom sax dafa ëpp mm-hmm. xaaju ci émission pour dire que de jiye à jiye moom commissaire Keita ci la nekk station bu mu nekk rek dañ ko fay jëlee ndax jiye moo ko fay jëlee ñu yóbbuwaat ko feneen donc tey bu ñu ne convoqué nañ ko euh, nit ñi mën nañ def liaison à propos de ces dires yi nga xamante ne wax na ko ñeer Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye fay mais boo creuser ba ci biir c'est sûr que dina am leneen xëy na le temps que Cheikh Oumar aussi di lire information bi ñu ko yónnee. d'accord merci beaucoup Salma Mati euh, palmarès wala sax parcours bi ñu Salma euh, dégtal jël na taxaw seetlu bu am solo. waaw de bon palmarès bi moom du ma ne palmarès bu riche la ndax wax dëgg yàlla. su ma sañoon sax du ma du xam genre mbindeef boobu waxantuma laa mi nekk sama sama sama sama papa donc euh, doom yi rek laa yërëm ndax am na ci koo xamante ni artiste la ñëpp xam nañ ko nawloo ko bu baax nag ndax euh, c'est un de la vérité mais pa bi salma palmarèsam bii nga lim nii la ilaha illa kii de bu nekkoon ci dëkk yoon moom dootul wax ci mbooloo <laughs> léegi après tout muy continuer di wax. waaw <laughs> ba ba tax na tey euh, convocation bi mu ñu ngi ko ñu ngi ko basé woon si diffusion de fausse nouvelle muy wax lu dul dëgg ci penc loolu lañ ko convoqué woon waaye gis nga euh, wax nañ ko mu ñibbiwaat ba suba mu ñëw tontuwaat euh, waa dikk donc commissaire Adramé Sarr xaw ma commissaire Adramé Sarr ak yi ñoñam bàyyi nañ ko mu ñibbi ba suba mu fas yéene dellusiwaat pour tontu convocation. man mii di wax ak yow sax de eh, sàmm ma yokkal la ci loolu nga wax noonu. Mhm. Euh, euh, temps bi mu doon wax que ni dafa taxawal benn mouvement boo xamante ne dañuy soutenir mooy la famille Dupont. Mhm. Euh, mooy Ousmane Sonko moment bi muy naan ay liggéey na impôt de domaine pendant quinze ans te kenn mënul taxaw fii ne mës na ko corrompre ci dara. Mhm. moom taxawaloon na fi benn mouvement boo xamante ne ni nee na famille bi muy famille Dupont boobu muy jàppale nga xam ne paa bi dèjà ndeysaan mag la ñu ngi koy ñaanal mu gën a am gudd fan maa ngi nuyu doomam bi nabu Nabou Dupont ñoom dañoo xëyoon génnee communiqué ñu ne paa bi moom moo leen yónni parce que Ousmane Sonko. dafa mos a bi daf ko mos a jox ko ay terrain yoo xamante ni ñu ngi féetee si euh, fii nii ci Dakar euh, pour comme ça mu mën ko diligenter situation jëm ci euh, benn parc benn assiette foncière boo xamante ni moom moo ko moom te am ñu si tegoon loxo léegi nag bi ñu xëyee daf ko am benn média boo xam ne mu ngi tudd Dakar Times xëy daf ko àlla la une di wax ni que Ousmane Sonko mi doon naan kenn mun koo corrompre ndeka famille Dupont bi mës na koo ger pour mu lijjanti leen affaire kii foncier lu kenn xamul famille bi nag bi ñu ko gisee mu metti leen torop te commissaire Kaytam yi ngay wax moo jiitu woon mouvement boobu noonu mm-hmm. ñoom ñu xëy monter au créneau xëy euh, monté au créneau dénoncé wax ni carrément seen papa bi ñuy jël di ko ci tudd tapaa bi nekk mag euh, déjà munul munul sax jóg ndax wéré di euh, yaram bu sutante mm. tey ñu xëy di ko dégg ñu koy tudd si nii te tey situation su demee ba diligenté wu ba mu mën a jot si suufam soosu noonu ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moo tax te bi ko paa bi paree di ko jox xaalis daf ko ne man lii ma la def nii lii moo tax ñu teg ma fi lii sama métier la kon man bu ma fay dara mm-hmm. yaa malheureusement Sénégal nag lan nekk gis na ni la promotion de la médiocrité dafa jël des proportions inquiétantes euh, euh, du temps du régime précédent aussi boo tàmmee di wax lu bon wala di def lu bon jëm ci Ousmane Sonko rek euh, moom déjà moom da ngay mujjee nekk un anti dinañ la def millionaire mbaa sax ñu def la milliardaire parce que yow moom mu ñemeel xas yi ñemeel saaga yi rek mais nag malheureusement comme régime bi changé na et ñu ngi nekk dans la dynamique du jub jubal jubbanti lépp lu di wax na ko xam lépp lu muy def na ko xam tamit ndax tamit kanamu yoon ba nga amee fitu toog carrément ne euh, Ousmane Sonko Jomaay doon doon xeex pale yaay dem euh, màggal man maay dem màggal ban jàppante foofu noonu yow yaa ko wax a ah, woolu nan la dikk boo demee kay yow indil ay preuve mu nekk vidéo wala dara wala comme yow yaa fekkee yaa dugg pale ba fekkee nga wax ne carrément maa leen fekkee ñiy xeex kii moo gañe kii moo def lii nii parce tamit ah en tout cas loolu la ñuy xaar wax est-ce que est-ce que c'est à propos de ça. diffusion de fausse nouvelle lan koy topp waaw diffusion de fausse nouvelle moo tax ma ne vidéo bi mu mujjee def dernière vidéo bi nañ toog ñun ñëpp ñu déglu ko attentivement bu ñu paree. parce que moom ay jiyee rek lay wax. daanaka xëy na wax na lu gën a garaaw loolu. waaw bon peut-être aussi parce que comme ñun mis nañu moom ay tuuxi mm. doonaam dara dootuñu bett ci moom mais seulement que tamit euh, c'est bien parfois boo xasee am ay doom nga nga leen di rus di leen sóoraale ndax tamit ku nekk boo sañoon bu ñuy tudd sa waajur dañ koy tudd ci lu baax mm-hmm. nga koy mën a tiitaroo di ko mën a ndamoo mais ñiy wax sa waajur loo xamante ni safaan la te yow mu leer na la ni dëgg la tam ñemewoo koo wax yenn yi ndax ñun yaree ñu yar boo xamante ni ñemewoo di jël yenn kàddu yi sa waajur donc moom bu dul dara sax moom na rus ay doomam ndax léegi ay doomam ay magum jëmm lan ñi am nañ jabar ñi am nañ jëkkër kon na leen di sóor daal d'accord c'est important Serigne bu fekkee li ñu jàpp ni moom lañ koy toppee ñu ngi xaarandi ay firnde jëm ci mbir moom waaw euh, man jàpp naa ni si si réew lañ ne si état lañ nekk te réew mi nag foog ñu xam ni dafa soppeeku nag. waaw am na loo xamante ni moom véritablement dootuñu ko nangul kenn. surtout nag rawatina ñi nga xam sous le régime du président Macky Sall lu nekk lañu doon wax commissaire Keita mi ca la bokkoon. c'est dafa am loo xam ne un petit peu man mën naa ko confirmer ci li euh, voilà mën naa ko confirmer ci li ci li Salma Ibrahima Fall doon wax. Mhm. je peux continuer. voilà am na loo xam mën naa ko confirmer xam nga lu tax